ginnaaw bu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir jotee ndigal ci Serigne Touba cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu xamal ko ne ko dama bëgg nga wool ma mbooleem chef de village yi dëkki Touba waaye woowaale it meeru Touba ñu bokk daje ci kër sëñ Touba ga nga waxal ma leen nangam ak nangam ndigal loolu nga xam ne moom la cheikh Mouhamadul Muntaxa jox ndigal Cheikh Mahamadul Bachir nag moo tax mu joxe woon ndigal ci ne nañ ko wool mbooleem seef de village yëpp ñu xam ne moom mii la Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa woo yónni ko ci yéen mbooleem chef de village yi dëkk Touba ak li ko wër woote boobu nag Cheikh Mahamadul Bachir wooteelu ko waaye it da ca làmbaale mairie bi ndax kenn ndax ku ne xam ne ne dëkkub tubaab bi chef de village yi ak mairie bi ñoo ko seq wuutu sëriñ bi ci mbooloo mi Cheikh Mahamadoul Basir it doon ki dox suñu diggante ak Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Muntaxa yàlla na yàgg lool loolu moo tax dañuy njëkk a fob kàddu gi jox ko maire dëkk bi di Cheikh Abdoul Ahad Ka moom mi nga xam ne moo jiite maire bi waaye chef de village yi topp ci ginnaawam mu dalal leen ñoom ñëpp su noppee ñu jox kàddu gi Cheikh Mahamadoul Basir mu yëkkati ndigalul sëriñ bi nga xam ne moo jëm si ci chef de village yi ak population bi kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ Abdoul Ka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Mountakha Bachir xalif sénat de Mouride mu yàgg te wér di ñaanal Serigne Sidi Abdoul Ahad sama Serigne mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne Touba gépp gannaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Bachiru Abdou Khadre li nga xam ne moo yor baatu yoon wi mu ne Serigne Mountakha daf da ko jox ndigal mu woo ñu woo chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yépp ak mairie bi de Touba ma ñëw teew fi ak conseil yi fi teew nga xam ne ñoo fi teewal bureau municipal bi ñoo fi teewal conseil yépp sëriñ bi dafa amoon kàddu yu muy yëkkati ngir jëmee ko ci dëkk bi Serigne Cheikh Bassirou dana ci ñëw muy tàmbalee nag ci chef délégué de yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ñëw ci chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci village yi ci dëkk bi muy cent douze villages yi ñëw ci mairie bi bu ci jógee war a jàll ci Serigne Bassirou bu fa jógee war a jàll bi nga xam ne mooy kilifa gi kon nag loolu moo tax sëriñ bi woote ne chef de village yëpp ñu ngi nii teew kenn ku ci nekk sëriñ bi li li tax mu wootee dana la ko wax soo demee nga woote say délégué de quartier yi nga xam ne ñoo concerné sa village jot li leen digal li ba bu ëllëgee lépp loo xewee ci quartier bi délégué délégué de bi xam ne responsable la ci war cee jot su ko mënee lu mën a lijjanti mu lijjanti ko su dul lu mën a lijjanti mu jàllale ko ci chef de village bi su ko chef de village bi mënee lijjanti lijjanti ko su ko mënul lijjanti mu jàllale ko ci maire bi su ko maire bi mënee lijjanti lijjanti ko su ko mënul nag mu jàll ko ci sëriñ Basiiru Abdou Khadre bi lijjanti ko su jaree jàllale ci sëñ bi mu jàllale ko ci sëriñ bi ne nag maire bi maire bi yàlla dafa dogal sëriñ bi da ko yëkkati def jariñ ji sëriñ Sidi Mbàkke Abdoul Ahad sëriñ bi yëkkati ko teg ma ci bopp maire bi ma ànd ak bureau municipal bi ak conseil municipal yi loolu moo tax lépp loo xam ne jóge na ci sëriñ bi war a jàll ci sëriñ si di sëriñ si di dafay taxaw ne dafay teg ay ndaw dafa teg ndawam ci maire bi ndaw loolu nag su waree mooy sëñ si di soo ci waree jàll ci moom jàll ci moom su jógee ci maire bi nag te maire bi mënul lijjanti ko mu day jàll ci Cheikh Bass bi nga xam ne moom la sëñ bi doxalee suñ diggante ak moom mu su su waree su ko waree jàllale ci sëñ bi moom mooy xam na mu ko waree jàllalee ci sëñ bi kàddu yooyu nag ak ni ñu koy tënkee ak lim ci bëgg a wax dana ñu jox Cheikh Bassirou dana ci ñëw yéen leeral ko mbooloo mi ba kenn ku ci nekk xam say responsabilité ak sab taxawaay ak li nga war a def ci ndigalal sëriñ bi loolu moo war a waraloon woote bi ñoo ngi nuyu nag mboolem chef de village yi fi teew di leen dalal. ci turu sëriñ Amsatu Jaxate mi nga xam ne moo ko jiite mu di ko di ko jox nuyoo bu mag mu jox ko délégué de quartier kenn ku ci nekk bu demee jox ko say délégué de quartier say délégué de quartier jox ko population bi parce que loolu mooy mbooloo mi nekk ci dëkk bi loolu mooy waa kër sëriñ bi kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di leen baal àq asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk jullit yi bokki taalib yi ñi dëkk biir Touba ak li ko war ñi ngi di nuyu ci ndigalul ki fi toogal Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba am ko ci liggéeyal lislaam suñu borom may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko ni mu ko bëggee sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk jullit yëpp nuyu bokk taalibe yëpp di jokk bokk lislaam gi nga xam ne moo ko booleeg ñi mu bokk lislaam te suñu borom santaane ko innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na itam ñu xam ne ni ko sëriñ bi daa waxee rek inna cheytaana lakum aduwwan fattaxisuhu aduwwan benn noonu rek lañu am mu kon mboolem ñu bokkal këri diine yi di këri lislaam mi ngi leen di siyaare di jokk bokku lislaam bi di jokk bokku der di fàttali it nag mboolem ñi nga xam ne bokk julli leen di bokki taal bi seen digg ñi ñu seqal lislaam jëpp ñu ci wax lu baax di ci wax lu rafet lépp loo xam ne mooy indi ak benn la ci seen diggante ñu di ko gën a sàmm ngir xam ne ñoo bokk lislaam ji te ñoo bokk réew mi ginnaaw loolu nag sëriñ bi kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko jëme ko ci bokkiteel bi ndax lii mu ma sant itte ju ko itteel la itte ju ko ñor la moo tax ni ko sëriñ Abdoul Ahad ka waxee xam nga ne bi ak Cheikh Sidi Moustapha ñëwee la yëkkati woon dëkk bi dénk ko Serigne Sidi bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw na itam yee salaat loola xamal ko ne ko ne ko ko Cheikh Sidi Moustapha dénkoon nu ko ëpp ni la ko ko dénke loolu waral Abdoul Ahad wax léegi ci turu maire wu dëkk bi ndax maire bi alali sëriñ bi loolu itam lu mat di fàttali leen ndax Touba bokkut ak yeneen dëkk yi ci des kon ñu ngi nuyu ñëpp sëriñ Koso Mbàkke mi nga xam ne mooy taw sëriñ bi ñëw na ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko koy sante ci lépp loo xam ne liggéey bi dañu di ko ànd ba lépp du mat bu noppee ànd leeralaat ko. kon sëriñ Sidi nii ko sëriñ Abdul Ahad Ka waxee rek noonu la demee moo tax Cheikh mu Mountakha nag santoon ma ne naa jot li yéen ñi nga xam ne yéenee chef de village ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi liggéey ndigal yi mu leen di bëgg a sant ne dafa bëgg ñëpp maase ci xam ne fii mu toog di jataayu Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ko tànn teg ko fi te suñu borom wax ci alxuraan ne allahu ahlamu xaytu yajcalu risalatihi muy bëgg-bëggu Serigne Touba itam ndax képp ku fi toog rek Serigne Touba seet na seet na ko tànn ko ba mate ko mu teg ko fi nee nag li mu fas yéene nag di ko xamal bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp mooy ne dëkk bi Serigne Touba da ko ñaan suñu borom ba suñu borom moy ko ko muy dëkk boo xam ne. yàlla def na ci histoire ci taarix kenn mës a fàttaliku fu ko nit moome kon muy lu ko suñu borom dencaloon ba di taw fee xam ba yàlla def suñu borom jox ko ko nee na Serigne ñaan fi mboolem li bëgg ci dëkk bi danaa ci dellu siwaat lépp suñu borom bay ko ko nee na ba sëriñ tubaa ñibbisi Touba bi Serigne bi ñibbisee nag mboolem njëkk fi masawutu ñëpp. tàmbalee ci ci ko fi jëkk a wutu di as cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci as cheikh Mouhamadou jaar ci cheikh Abdoul Ahad jaar ci as cheikh Abdoul Khadir jaar ci as cheikh Salihu Mbacké jaar ci cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ba jaar ci as cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ba yàlla def moom mii lépp ndénkaan di nekk ci loxoom nee na nag fas na yéene li ko ci war. mooy na ko ñu jëkk ñi daa defe mooy wattu ak sàmm lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bi mu fas yéene ko wattu sàmm ko ngir xam ne ndénkaanu Serigne Touba la ndénkaanu Serigne nag nee na képp ku muy àndal dëgg lay ànd ak yow kunu ma mahal xaq mahma kallafakumul amru moo tax waxam ji ji mu weesu yéen ñëpp ko déggandoo loolu rek la wax naa ko fàttali ci biir fàttali gi itam muy digal ñi nga xam ne yéene chef de village yi tàmbalee ko ci délégué délégué yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam dadaa nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgg ni itam noonu lay demee yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkoon te mën na faa nekkal boppam moo fay nekkal boppam kon yéen ñi nga xam yéen lañ ko dénk nag tàmbalee koñ ci délégué délégué de bi nañ xam ne ñu nekk ñoo fa war a nekk ndawi sëriñ bi nekk fa ay loxoom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa na ku ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis du la xeeb coow dara ba xam ne yow mi mate nga jata jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñun dëkkal war nañ ñi gën a sàmmonteeg ndigal yam fi joxoon ndaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maa si gën a farlu gën cee góorgóorlu képp koo xam ne gis gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ca na nga ko war a saafara bu la tënk chef de village ba la nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barab kat war ngaa góorgóorlu ci te taalibe yi ndax loolu laa fa bàyyi. bu tëyee chef de village ba mën ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci kim teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg muy saytu ni dëkk bi doxe ci wàllu adduna bi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci quartier nga xam ne ndawul sëriñ bi la loo xam ne bëggati nga ko wala nga xalaat ko na nga dem ba coom nga àgge ko bu tay ñoom ñëpp nag danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam rek bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lu jënte te sëriñ bi du ko yëg fa saasa ba def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon kilifaam yu jëkk yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mi ngi ñaan ñépp ñu sàmmule ko loolu nga xam ne ndono la di ndénkaanu Sëriñ Tuuba ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma digal ma ñetti weer yu jotate mboolem chef di village ak délégué de quartier yi naay dajee ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool luñ ci mën a saafar bala ñu dajawaat loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne sëriñ jox na ko danañ ko sàmmonte kon loolu mooy la jiitu ci ndigal yi la ca desaatit mooy li mbooxoon ne bëggatu ko fee léegi mooy di saafaraal sa bopp loolu itam ñu ngi koy feddali waat bu baax kon moom moo mën a dox suñ diggante jafe-jafe àdduna kon lu nit bëggate ak nu mën a demee rek naa fexe ba mu agsi ci sëriñ bi te sëriñ bi kat waxoon naa ko ca màggalu Poroxaan ga mu fattaxatan lahumul abwaab la jëmm la joo xam ne ubbalut ay buntam kenn fu waaye jóge rek boo agsee dana la diglu ak koo mën a doon te dana la jox ci waxtu loo xam ne sax boo gàttam xel li fi bàyyiwoo sëriñ bi du bàyyi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla def na kilifa la goo xam ne kilifa gu ma sëkkalam doon la kon loolu doo ko ñëpp bàyyi xel yàlla def it tawféex ci moom ndax képp ku fi ma sa nekkal sëriñ Tuubaa rek tërbiyewu na ba làq sa ngiram nam daan doxee ay kilifaam itam nag ñun ñëpp nañ fas yéene doxee moom noonu te yàlla defal na ko ci tawfeex ñëpp noonu la ñuy doxee moom danaa wax ne sama kilifa dama koy bàyyeeg sama jëmm dama koy dama koy bàyyeeg sama jëmm bàyyi ko jëmmam kon nag loolu ñun ñëpp nañu fas yéene ànd ak moom noonu ngir xam ne ku ko xam ci yërmaane ji mu am ci jullit yi sax laay wax am ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa googu kilifa ku ko yàlla defal war ngaa gën a dalum xel te koy ñaan waxtu wu nekk mu yàgg fi te ànd ak wér ngir xam ne moom lépp loo xam ne war na ko rek xam na ko te dana ko def ndax ba yi fi mujj xew ca tàmbali ba lam ci jëkk wax ba ca mujj la genn kàddu rek la dafa wax ne jàngoro ji mbindeef mu yàlla wàcce ci kaw suuf la waxtu woo ko jeexalee rek mu jeex nee na Sénégal tam bañ amee Serigne Touba la ñu am jàmm kon moom lépp lu ngeen gis mu def ko rek wane aw yoon la ci jublu waaye moom xam na ni ku xam diggam ak boromam la ku xam diggam ak Serigne Touba lépp lu ngeen def ko mu mu ci ci saaxir si rek daa bëgg a wane aw yoon te ku jiite dangaa war a wan nit ñi fa ñu jaar moo tax yi weesu nag lépp lu ci xew rek def na ca war a def taxaw na ca war a taxawi ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgul bu nit ñi doon xam li muy daj ci yërmande ci diggam ak soxla nit ñi ñëpp seenu xel dana gën a dal ndax li ngeen ci xam li ngeen ci xamutu ko kon la Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil daa wax rek bi ñu ñaanal Cheikh Serigne bu Mbacke ak Cheikh Mouhamadou Mourtala ak soxna May daa waxoon ne seelukat xamut li xaddi di dajek ba ba ba ndox mi agsiw ci moom kon ñun itam nañ xam ne li tax tàngoor yu agsiw ci ñun kat Cheikh Mouhamadou mu tax a tax kon nag yàlla na fi yàgg tànd wax na ma it nag ne mi ngi jot li taalibe yi ak cant ak ngërëm ndax xam na ne moom bëgg-bëggam bépp génn Sëriñ Tuubaa loolu itam lu ko ñor la dane ma nag ma santal ñi ma bokkal Sëriñ Tuubaa ndax liggéey Sëriñ tubaab bii kat ñoom ñëpp maase nañ ci xam ne ku ci ne la ma yéene sama bopp laa di yéene waaye ñoom ñëpp itam ànd nañoo man àndin woo xam ne kenn ku ci ne xam naa la nga yéene sa la nga ma yéene yéene ko sa bopp ñaan loolu yëg na ko mboolem ñi defaroon seeni maam dégg nga lim leen seeral wax na ne foo gisal la naqare bayu ko ci ñoom ñooñu itam na seen maam yi àndoon ak Serigne nañ ko moom ndax kenn ku ci ne addiye ja nga daa joxe yokk nga ko kenn ku ci ne itam yéene nga ko ndam yéene goo xam ne boo soñoon ku fi jaar te am ndam rek moo ko ëpp nee na loolu lépp nag na ngeen xam ne xam na ko waaye nag Serigne Touba mi tax ngeen àndeek moom noonu mu ngi leen di ñaanal kenn ku ci ne la nga ko yéene ak la nga jëf ci moom yàlla na ko Serigne Touba fay taalibe Serigne Touba yi nag nee na ñoom moom dafa jàpp boppam ci biir taalibe yi ndax nee na Serigne dafa masa daje ca njaareem def bokk yi nii ci wetu ndajoor def taalibe yi ci wetu càmmoñ daane yéen taalibe yi na ngeen ma ruus ci sama bokk yi ndax ñoom man rek lañ am daan yéen sama bokk yi itam na ngeen ma moytu ci sama taalibe yi ndax ñoom man rek man ñoom man rek man rek ñoom man ñoom man rek la am ñaan nag moom ba mu déggee wax jooju la jël boppam jaay ak njuréelam jënd ko taalibe jàppe boppam ci biir taalibe yi moo tax nag yitteem jëpp mooy lu leen aar ak lu leen sàmm ak yërmaande jum dox diggéey mu ñoom nee itam mi ngi leen di sant bu baax lépp lu ngeen dégg mu wax leen ko da leen bëgg dimbale te nit boo ko bëggee dimbale danga koy wax dëgg waaye nag nee na sant na leen bu baax gërëm na leen ndax cant gi ngërëm li mooy daaw fii lañ toogoon mu santaane fi ay santaane te boobu bi mu koy santaane itam dafa woo sëriñ Sidi muy jëriñam tegaat ko ci loxoom sëriñ Sidi wooluwaat sëriñ Modou Lo Ngaabu mu jëri Safir Amaan tegaat ko ci loxoom muy tere yi mu doon tere ci dëkk bi nee na ba mu ko teree taalib bi yëpp yëpp yëpp maase nañ ci jëfe ko ba kenn desut nee na loola xam na ne seen bopp ngeen koy defal waaye nag moom mi fi nekkee sëriñ Tuubaa tas fàttali leen digal li ni ngeen ko jëfee sant na leen ci gërëm leen ci li ci mujjaat itam mooy barki démb bi nga xamee ne xew-xew yi dëkk yi xew ci dëkk bi xew na ndax booba itam lépp xam na ni mu demee ndax junjee la ko boppam leeral na ko ko jëru del siwaat waaye ba mu yëkkatee kàddoom kenn ku ci ne la nga doon def da ko bàyyi wëlbatiku la la naqari woon nga def ko muy loolu la neex nee na loolu nag xam na ko kon nag mi ngi leen di ñaanal ci loolu yi nga xam ne fu ngeen déggee ndigalam xam na lu leen di jariñ la ngeen bàyyi la ngeen jàppoon Serigne Touba mi tax ngeen di jëf loolu yàlla na leen ci defal tawféex te xam ne Serigne Touba kat waxoon na ne waxtu ma sante nit def day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal la nag day dellu siwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye aw fu ma ne kon jëfe ndigal rek am solo kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax ñëpp ci li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ci dëkk bi xam ne sëriñ Touba kat ba muy gàddaay di sanc dëkk bi dafa am lu taxoon mu sanc dëkk bi dafa waxoon ne daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax na itam li tax ma sanc dëkk bi mooy jàng ak jàngale ak ak tërbiyewu nee na loolu Sëriñ Tuubaa sosi woon dëkk bi nag waxtu wu nekk nañuy fexe ba ba nañuy fexe ba góorgóorlu ba di ko sàmmali li li taxoon mu sanc mu sanc dëkk bi ba képp koo xam ne gis na ko dëkk ci dëkk bi rek bu la gisee xam ne kii kat yarub dëkk bi la te loolu Sëriñ Tuubaa nañu ko la ca des nag jug jëm cee rek lay doon la ca dolli ko waate mooy dëkk bi dëkku xéewal la Sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon suñu borom ne ko ci mat la u foofu ni wa maskani sallim minal fujjaari wamnu na alal ahli bi ma in jaari kon yàlla nañu yàlla musal ci ñi dëkk ci dëkk bi te fi te fi nekkee lu neexul sëriñ bi ni ki nga xam ne dafa ñaanoon ne wajbuluhal xayra min al jihaati as siti wakfiha anil afati loola war a Tuubaa lu jamono naqari naqari lu mu diis diis doo dégg doo dugg ci génn kër ba xiif wala nga mar loolu pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la moo ñaanoon suñu borom bi tam xamal ko ne ko wax ne wali siwaaya yantahi day day xus zaman xat-xat xat-xati jamono jëm na ci futu man tayifa ocha yi tayifa xoda yi kon nag la ca des nee na xam na ne Sëriñ Tuubaa dafa woote wax na yaa ahla barri yaa ahla bahri honjoli bari bari soxaay bi mu wootee nag ñëpp a ñëw bi mu wootee ñëpp a ñëw ku ne nag fa nga jóge da gàddaay indaale la nga yor looloo waral kon dëkk bi bindoo ni mu bindoo waaye loolu lépp itam nañu xam ne fàgguteefu Sëriñ Tuubaa boo amutoon dëkk bi saa su xëyee nit dana faatu waaye fàggu gi mu fàggu loolu te dëppoo ci boromam moo tax suñu borom may ko loolu ni mu ni mu fàggule fàggule kaaraange rek euh, wax ne wan fi ba wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha waral mbas mii fi xew ni ko sëriñ bi santaane damay wax ne butul woon nag li ko ñu jiite réew mi santaane itam Cheikh Mouhamadou Mountakha du yëkkati lu tollee deux cent millions di ko def ci loo xam ne ay nax la kon bu toon dara itam boo ko sëriñ bi santaane rek ñëpp dañu ko war a def kon waaye jàngoro ji ku dugg ci biir dëkk bi gis ni dëkk bindoo xam ni bindoo danga xam ne sëriñ tubaa aar na leen ci loolu kenn nattabloo ko ndax boo xoolee ndakaaru euh, lim ëppee Tuubaa bariwut te boo xoolee jàngoro ji doon na fa ay yoon yoon loo xam ne moo ëpp fii kon loolu lépp itam ñoo xam ne pàgguteef sëriñ Tuubaa bu mu fàggul waa dëkk bi la kon loolu itam nañ koy sant yàlla te yamalu ala daawuda shukran li ñuy fayee Serigne Touba nag mooy jug jëm ci moom kon nag Serigne bi neen mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali itam nawet bi mi ngi dugg si te daaw xamee xam ngeen bi mu jubsee li mu santaane woon ba ñu feexa ba dëkk bi gën a set feexa ba gën a sekkar ci tiwo yi yooyu yëpp itam na nga ko defe woon euh, Serigne Cheikh Abdou Latif moo ko taxaw woon daaw ren jiitam balaa nawet bi ñu góor góor laa ci fexe ba nañ ko defoon ànd ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci njëbu ci jiitale Serigne Cheikh jëmb mi nga xam ne moom la ko tegoon ci loxoom eh, buñ ci àggee lépp dis na ko leeral ndax dëkk bi itam ku fi ñëw rek yaakaar la fi indi ndax Serigne Touba dafa wax ne ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi moo tax Serigne bi bu sañoon kenn nekk ci dëkk bi du tumuraange looloo waral itam mu ngi sant taalibe yi nga xam ne. ñuy góorgóorlu ci biir loolu ndax lu mel ne waa Touba ca kanam xam ngeen ne diggante daaw ba dem jëf yu bëree bëri jëf nañ ko ci dëkk bi ci wàllu leeral dëkk bi wàllu setal dëkk bi wàllu jëmbat fi garab di ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi muy maire bi di Abdou Lahad kon ñoom itam sëriñ bi di sant di sant mboolem daayira yi nga xam ne quartier yëpp boo dem lii jamono ji xewal ngir bëgg fépp set Touba ñoo ci jiitu ndax bañu xewal loolu yàgg na te lépp itam ci pëstéef lañ koy def yaakaar payeg suñ Tuubaa amu ci kenn koo xam ñi la ci joxub dërëm kon sëriñ bi nee na taalibe yi daal mi ngi leen sant leen gërëm di leen xamale itam lim leen ëmbal mooy yërmande lim leen àndal lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp jariñoo lim leen ëmbal mooy bëgg ñëpp seen digg sëriñ Tuubaa eh, seen pëstéef waxtu wu nekk muy gën a yees di gën a sell te loolu nag sëriñ Tuubaa mel leen fàggalu ko taalibe yi kon nag ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di fas yéene itam ñi ko sëriñ bi santaane ñëpp gën a góor góorlu ci loolu te xam ne ndigalu sëriñ bi rek moo ñu jëriñ te sëriñ bi kat ku am ci am ku am yërmande ci nit ndax koo xam ne amul waxtu wu noppalu saa su xëyee ba guddi ginnaaw jaamu yàlla yi maa ngi ci liggéey ba di ite loolu nag sëriñ Tuubaa moo ko santaane woon ndax moo waxoon. Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Farid ne leen seenu jaamu yàlla ci ëpp ginnaaw li yàlla san farataal ci yéen mooy eh, di jonjoon nit ñi di dékku seeni tartar ak seeni métti métti kon nag képp ku bokk ci Serigne Touba ña nga dëkkat di taalibe Serigne Touba war ngaa fexe bay xam ne li la Serigne sant ci sa digg ñoom ndax waxoon na ne li ma leen warlool ci seen digg yéen mooy ak yëg ak itteewoo leneen li ci des lépp maa koy defal sama bopp kon nag loolu na ko ñëpp xamee noonu kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.